alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an xalifatihi mawlana abul abbasi ahmad ibnu mahamad atijani wa tamanana allahu an warisi sirrihima sahibil fayda mawlana cheikh ibrahim ibnu alhaaji abdullahi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am contentement ak mbégte di leen tatagal ci seen site bi ngeen safoo di Fayda Tijaaniya waxtu bu jot ñuy am mbégte di dalal suñu sëriñ suñu soppee suñu xarit ñuy sang Ababacar Ndiaye te ni ñëpp dañuy ittewoo di déglu ay waxam ci xam-xam gu yaatu gi sëriñ mi ñu lay nuyu di la ziyaara di nuyu waa jamaa bi yëpp di jiital si nuyoo bi xalifatul am de la Fayda Tijaaniya alxaadimil umma cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass boole ci imaam il akbar imaam cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé waaye di nuyu ki représenté xalif bi fii si Dakar di cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ñas tey ñu ngi dalal sëriñ bi fas yéene waxtaanee ñetti toom yi nga xamante ni war na ci képp kuy taalibee nga xam ko mooy lan mooy ziyaara ban ngëneel moo nekk si ziyaara ak ban njëriñ la taalibe di jëlee si ziyaara sëriñam loolu nag ñu daral si sang Barham mi nga xamante ni ñëpp a ittewoo kàddoom ci yu mel noonu di ko ndokkeel bu baax si ziara annuelle bi ñuy waajal le 18 incha allahu taala danañ sa dugg waaye ñu ngi dégmal ziara Medina Baye la 24 mu nekk yóbbal boo xamante ni ñeel na taalibe yi nan lañ war a ziar see sëriñ bi lan moo sabab ñu ziar si ko ak lan lañ fa war a jëlee kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal si fayda tijaaniya ya wassalaamu ala وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد إبراهيم سيسي نملي نيو دي نيو فايدر تيجاني يب دي لن دوكل تي سين ميشون بيغا نيك مي ميشون بو رافت ميشون لا بو خامني على كل حال borom bi subhaanahu wa taala moo ko digle wàcce ko ci làmmiñu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ngeen tasaare lu baax lu baaxul ñu nëbb ko te lu baax lépp luy baax ci soonu mbaax mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yéen tam sama wax ci xaddis bu wér moom itamit ndeysaan ci lu baax li ngeen def nii pour encourager leen ci yéen ñëpp mu ne ballugu ani wala aaya na jotal ci man donte mu nekk sax benn aaya rek yéen nag wax dëgg yàlla waa fayda ya ku leen xam seen itti kooy na lool ci tasaare islam dem ci borom xam-xam yi guddeeg bëccëg di leen taalal micro pour ñu mën a wax ci islaam pour ñi ñu mën ko jëriñoo kon yal na yàlla gën leen may ndam ci li ngeen nekk. bala ñuy wax dara ñu ngi nuyu comme ni ko waxee suñu xalifa nga xam ne mooy xalifa bi nga xam ne mbooleem ku nekk taalibe Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass te fayda bi tey mooy sa imam yaa xam nga nekk Sénégal yaa xam nga nekk en dehors de Sénégal mooy xalifa mooy xalifa boo xam ne ku matale ci xilaafam gi mooy xelifa tax xam matale mbooleem xilaafam gi waaye wuutu koo xam ne it nag eh, wuutu ko jafe na lool waaye jomb na ndax li tax mën a jafe na mooy wër na àddina bi yëpp ci xam-xam la ko wëree ak dignité ak fulaag ak fayda ak xam boppam ak gëm boppam ak xam-xam bu set te fu mu dem ci àddina bi yëpp nekk mbër boo xam ne kenn mësu koo daan kooku mooy Cheikh al Islam Ibrahim kooku nag wax dëgg yàlla tey ci zaman bi yàlla def na ci xikmaam xalifa bi nga xam ne moom sax nee buñ ko bëggum ñu koy tudde baatoo xalifa waaye lim lim tànn mooy xaati xaadimul umma xaadimul umma na li muy firi moom la ñu san woon ci hadis ba ne seydul qawmi xaadimuhum sangab nit ñi mooy kenn liggéeyal moom mu tànn nekk nag liggéeykatu yonent yàlla Muhammad ci biir mbindaafoon yi xaadis yu nu sama wax na ci xaadis yi boo xam ne eh, bu ñëpp miin la bu ñëpp mokkal la boo xam ne gàtt na waaye fasaxa na lool ci wàllu tasaare diin yi di lislaam yàlla wax ko ci xadisu quds bi alxalqu xiyaalullaahi mbinaa foo ñoo njabootu yàlla ahabum ilallah an fum li xiyaal yi ki ci gën mooy ki leen mën a jariñ te mbinaa foo ni ki leen mën a gën a mën a jariñ man su ma ne kenn la wax naa dëgg waaye su ma ñaar la wax naa dëgg waaye su ma ne ñett la wax naa dëgg kenn ki mooy Muhammad ak nubboote yëpp képp ki fa jëriñu moo la fa jëriñ kenn ki mooy Cheikh Ahmadou Tidiane ak wilaya képp ku fa jëriñu moom moo la fa jëriñ kenn ki mooy Cheikh al Islam al Ibrahim Niass xilaafa bi nga xam ne mooy xibla tabaraka taala am njëriñ moo la ko jëriñoo. ñett ñooñu nag mën a daje ci kenn parce que bàyyi kenn la koo xam ne moom moo lem mboolem ñaari maqaama yi. ñu koy tuddee butoon li butoon ci xam. su ma nuyoo xalifa bi maa ngi nuyu imaamul akbar imaam bi nga xam ne wax dëgg yàlla imaam bi imaam lañ waaye moom imaamatam gi dëgg-dëgg yàlla may na ko ci ndam bu rëy ndax ko imaam boo xam ne bu duggee ci biir jumaa ji avant muy ñëw mbooloo koy dar di ko sikaral bu dugg see ba nuyu mbooloo mi taxaw te dokk bi toog ci kaw bar bi buy xutba mi naa fay doo dégg gis mu yor benn kayit te doo gis mu wax di arrière di nakk nakki mi ñu wax lool maîtrise ko lool alhamdulilahi rabbil alamin ci boobu imam muy imam Cheikh Ahmadou Tidiane Cissé gannaaw loolu tamit ñu nuyu lisanu xadara Seydi Mahi Cissé mi nga xam ne mooy tamit rakkam la ju baax ju topp ci moom sës ci moom rëkk ñoom ñaar ñu bokk ndey bokk bàyyi ñu am waajur woo xam ne waajur wu tedd ci wàllu waajuru zahir ak waajur baatin yëpp kuy sa papa ak ñun seen ali ali ban ali Cissé mi nga xam ne mooy baabul xadara kuy sa yaay yaa Fatimata Zahra ki nga xam ne mooy taw Seexul Islaam Ali Ibrahima Niass wax dëgg yàlla ñu mel nii yàlla moo leen may mbaax ñu leen nuyu di leen ndokkeel di kontaan trop ci émission bi te départ wut di leen déglu ba xam seen question lan la ñu toon ci li ñu xam jasakumulaa xayra salaamaaleykum wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sang Ababacar ñi ngi ndokkeel beneen yoon Cheikh Moussa ak ki nga xamante ni mooy Lamine di suñuy soppe nekk si jamaa bi. Mm-hmm. ak naalal mu naa mi nga xamante ni moo génn si mbaxana yi. ñu ngi koy mm-hmm. nuyu di ko ziyaara. Mm-hmm. di wax ñëpp nañ ko seeti ji wax dëgg yàlla. sëriñ bi nga ñaanal ko yàlla. incha allah ndax la ci loolu. waaye laaj yi tey amaana dañuy dugg direct si waxtaan bi. tey sëriñ bi bu ñu bëggoon a xam lan mooy ziyaara. ndax dañuy dégg ziyaara ziyaara waaye tey soxla nañoo xam ana lan mooy ziyaara. dëgg la. waaw ziyaara moom baat bi départ na ci ku bëgg am ndollal. alhamdulilah. dem ci ku am ndollal. Mm-hmm. nga am ndollal. Mm-hmm. ziyaara fu lu nga tënk. muy mm-hmm. baatu ziyaara siyaada ak ziyaadatu. ñetti marxal yooyu moo ko séq. ki am ndollal. ak ki bëgg am ndollal. nga bu ñu ndollal am. ñetti marax yi rek lii ma tudd ziar ziar nag kan lañ ko war a defal ak kan ma war a ziar kiñ ko war a defal mooy koo xam ne waxtu woo ko dikkee ci bépp dikkuwaay ci wàllu xam-xam mu mën la ko jox ci wàllu diine boo xam ne maîtrise na diine ji maîtrise boo xam ne ci mboolem maraxil yëpp kooku lañu war a ziyaara kon taalibe bi mooy jug pour ziyaara ji sëriñ bi ci boppam moom lañu war a ziyaara moom mooy ziyaada bi nete ju xumaa nag mooy ak ziyaadatu lii ma tudd ziyaara alquran jàngal ñu ko ci benn aaya bu gàtt bu fasaxa ممن يالا صاح داف كو تودي فار كي وري زازا موي كو دغلو ادينا للذين احسنوا الحسن والزياده لولو نيرونا لول اك نيرو شيخ ابراهيم دا فاي ملني كون باي يالا دا فا جانغال نيكون باي لي وري زياره ناخ باي مو ام زياده تي ني ني ابغن دجي ngam زيادته nga ne ma pourquoi nga ne bàyyi. ndax da ko bëgg rek may la déedéet xam nga moom ko layal. ndax moom wax na ma mu bàyyi ci boppam ci lamuñu boppam moom Cheikh Ibrahim ne mboole mee ñëw di ma ziara mboole mi ñëwoon di ma ziara ak mboole mi tooga ma nii ak mboole mii dem du benn mbooloo wax dëgg du benn mbooloo. Mm-hmm. Barzari ngay waxee du benn mbooloo. ñii ñu ngi ñëw ñii ñu ngi toog ñii ñu ngi dem du benn mbooloo waaye benn mbooloo la bu ñu xam ne bàyyi rek mooy yow ziyaara bi fii ngay xamee li tax bàyyi wax lii nag ma la mboolo mi ñëw di ma ziyaara ak mboolo mi toog ak mi dem benn mbooloo te benn mbooloo la woon lan la bàyyi namm ci wax ja ma laaj ba sa toog kon mbooloo ma ñëw di ziyaara bi ñëw ci bàyyi dañu buggoon ak ziyaadatu dolli ko ñëw nekk ay mahjub toog ak bàyyi bàyyi jës bu leen kon mbooloo moroon ñëw dee nañ ana mbooloo mu juddu xat ñu ne ko ay majzub am nañ ziyaada avant ñuy dem bàyyi daf leen tarixi ci yàlla daf leen tëddali yi ngay tuddee fana ak baqa kon mbooloo ma nekkoon majzub dee nañ mbooloo mi am baqa ñu fi des kon am nañ ziyaara am nañ ziyaada am nañ ziyaada loolu mooy Cheikh ba ngay ñëw mahjoob nga mm-hmm. di nga toogee bàyyi def la majjoob ngay dem doon aarifina billaay ana mbooloo mahjoob ba dee na ana mbooloo majjoob ba dee na ana mbooloo ma benn mbooloo benn moo fa nekk mm-hmm. loolu awxam de wax na allasina ahsanu alhusna wa ziyaada mm-hmm. te ziyaada dëgg li muy firi mooy gis yàlla ci biir aljana ah nga ne kon lu tax nga kon bàyyi moom mën a ma ne waaw danaa la ko lay ci wuyu bàyyi rek mu yomb lool bàyyi moo toog fii ne waman yuhibbu nii képp ku ñëw di ma ziyaara man bàyyi bëgg ma ba di ma ziyaara si dama ko taf fu mu la ko firi nag waaye xam naa arab bi nan la wa man yaraa nga dem ba gis ne dara amul du bàyyi fi jante xul di da nga dugg àjjana bilaa ci loo xam ne amul sikk sàkk loolu bàyyi moo ko bind lam wax nag dafa ne wa man yuhibbu nii képp ku ma bëgg man bàyyi ba man yaraani képp ku ma gis man Cheikh Ibrahim nga bëgg ma pare gis ma ñaari mbir la ku def lii yaa ngi ci dugg ajana boo xam ne ajana biir lay doon ci lu amul sikk sakk ku ca duqul di bii laa buxtaan kon nga déggee ci bëgg gi gis bëgg gi fu mu amee gis gi dina am te gis gi mooy ziyaara très bien alhamdulilah rabbil alamin kon mbëggal ga saa ngay def ziyaara gis ga mooy siyaada ga xanda moon nga mooy ay ziyaadatu ga kii bàyyi la moo ko moom. moo tax kii lañu war a ziar. bàyyi ñu ne ko bàyyi lu tax yow ñetti maqaama mu ne waaw ñetti maqaama dama ko yettisal ci ci sama ñetti gars yi. Mm-hmm. benn bi dama ko dox yonent Yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam mooy ziara. Mm-hmm. gis nga alam bii. yéen sax mu dëkku fi. Mm-hmm. dafa ñëw pour ziara. gis nga alam kii ko moom mooy Cheikh Tidiane mu am siyaada. kii boole yu ñu doon ak Cheikh Tidiane mooy bàyyi mooy az moo tax mu ne is ànd nii xalifatu tijaani gis nga ko mu lay lay la wax ba is ànd nii naka man mii xalifatu tijaani mm. ma may xalifa Cheikh Tidiane kon koo ma gis kon boo gisee man nga boo gisee Cheikh Tidiane ma ngay gis ku ma gis gis Cheikh Tidiane mm. waaye mawhibatan min ahmad haddanaani mm. ak may la ko tëgg ci yonental Muhammad kon ñëwut ën na yonent bi ën na Cheikh Tidiane ak boppam kon nga xam ne kon dëgg-dëgg mooy nag lii ma xam ne man Cheikh Ibrahim nag wax joo xam neexul dégg de man sakk fii saa képp ku sikk sakk lii ma man bàyyi ara wa asmahu min haysu la yura al fatawa asmahu man bàyyi maa ngi gisee foo xam ne di déggee foo xam ne gars yi kon luy gis ak luy dégg bu doon bët rek la ñëpp ngi gis bu doon nopp yow ñëpp a ngi dégg waaye fa muy gisee la bàyyi maa ngi gisee foo xam ne ak déggee foo xam ne kon nga bàyyi fa muy gisee mooy boo demee ca kër Cheikh seeteel mi nga xam dafa jóge mukk bay fa lay gisee bàyyi fu muy déggee ci kër yonent Muhammad sal bay déggee ak moo tax alxon inna sama wal basar mm-hmm. sama ak basar mooy kan ak kan muy ndaw Cheikh Tidiane fois du bay bàyyi mooy xol mm-hmm. gis nga ñëwaat na moo dax sëriñ Aliou ne wa man faatahu wa fa ah. cheikhul xalil mhm. fa mhm. akbar kabir cheikhul xalil mii romb romb romb ko waaw ñu dimbali la si jamono ji lu lu jomm loolu wax bu dëggal ziar bàngo wallahi Ali Babul Adrati mhm. nee na képp koo xam ne romb nga bàyyi mbaa bàyyi romb la ngaa di wax fi nekk benn borom xam-xam dafa waxoon ne sénégalais sax wax wala boog wolof moo koy wax mu ne yow bàyyi ëpp yéesu loo gémmiñ jàppul la bàyyi koy wax ci làmmiñu taalibe yi ëpp leen yéesu leen gémmiñ jàppul leen xamuloo lu ñu firi ëpp ak yées su ngeen ëppoon man damay ñëw yéen di ñëw ba dem man ma door a ñëw su ngeen yéesoon man dara ñëw ba dem ngeen door a ñëw su jàppoon daa ñëw xoo ngeen bañ. kon ñoo bokk jamono ëpp leen. Mm-hmm. seen jamono ak seen jamono ñoo ànd ba yeesu leen. Mm-hmm. nangu ngeen bi ma nangu ngeen ma kon kon kii kii mu jàpp leen. Mm-hmm. kon ëpp leen yeesu leen kii jàpp leen mooy lii. yépp ci wàllu ziar la bokk. te ziara man dama ko toñee dama ko toñee célibataire yi. waaw célibataire su ma nee ziar muy indoo pare man mooy célibataire nag mooy célibataire tamit. amagoo soxna yaa ngi ci yaa ngi ci tuus bi rek kooku mooy bi allah akbar ba mu yàgg nga génne ci sa doole di ko génnee di ko génnee ba mu nekk benn million nga am takk jabar indi mm-hmm. yàq bi jar mu génnee ci la génne ba léegi mm-hmm. noonu la xaw a génne woon ci aadama allahu akbar <laughs> nga takk soxna indi ko ci kër gi am nga ziyaada mm-hmm. wajtama am yi ñaa ngeen def wajtama dajee <laughs> doom génn nga am a ziyaadatu <laughs> لزين أحسن الحسن وسيان وسيان والله يدوير متى لي موي زيارة دك دك زيارة لول نك كبار غان قام يتلان كوي ندي من ديجي كبار غوغو كبار غو نخمن دفع دل سدو غوي تأمل بين لور فمي كبار شيخ إبراهيم رضي الله موتاخ دامي وقت توصل من ينون طالب الشيخ إبراهيم أنا من لو خمنه kenn mësu ko am te kenn du ko am. te loolu mbina Baay la. man dafa toujours ma waxee ba dama ne mbindam Baay la. Mm. mbindam Baay nag dafay wax ci jamono yëpp moom. Mm-hmm. li may ah Baay dama ne alquran mm-hmm. pour ñëpp la. Mm-hmm. pour fépp la. ba faw la. tamit. pour ñëpp la. fépp la ba faw la. xam nga buñ ne ci wàllu tubaab. futur. passé présent. la mooy baay baay mooy futur baay mooy passé te baay mooy présent nga ni ko ni mu ko doonee mana baay moo ne kuntu urufan aliyatin wa asturan nekkoon naa la nekkoon naa lool la la gaay passé la futur booy mbaay moo ne mata taraw naa loolu di futur 13 ans nag fa sax ma daqaa masara kon bàyyi muy futur mooy passé mooy présent comme mel ni ku ko am sant yàlla bu baax alhamdulilah gis nga coow yi di am ni yëpp ndeysaan ñàkk déggul rek la ñàkk waxtaan rek la wala <laughs> jaa dee wax ne réeroo amut xamul am ñàkk waxtaan nit ñi ñoo bokk xibla buñ bëgg yonent am salaam dafa ñëw fekk yàlla indi ya yoon yéen yu ne vingt quatre mille prophètes mm-hmm. nekkatoo min aadama ila isa ñëpp ay takkandeer rek lañ. Mm-hmm. ay takkandeer lañ ci kan takkandeer nag du am fulay borom takkandeer su bëggee su bëggee su bëggee am fulla day nangu ne moom jëmm ji moo moo ko nit mm-hmm. kon ki nit ñëpp ci nubuutu muy tal Muhammad min aadama ila isa ñoom ñëpp ay takkanal ci yun dama moom rek ma fay nit te moom dong la yàlla yónni nag di li ma xam yun teel yàlla yónni yàlla yónniwul Isa yónniwul sax jaay waxate de nga ne ma naan man ne ko daana ko lay ci Alxuraan si yow yaa di ko Alxuraan daa ko lay gis nga xaqiqatul Muhammad yi bi ndewu tëjël yi haybam bi mo efface yonti yontu bu nek ne yalla ma yoni te ñu amul ci kenn ku mëna a peintre mo dem kon jeexna allah akbar xaqan hakku Muhammad ci boppam haybam bi bay mako wax mooy hijabul aqsam moo hir yonti yalla ba kenn mënta a peintre dem ci yalla ngir oto mu yonent am sa xaqan mo bu woon moo ak way gaay yi ko ne kataballahu laaw lax ana wa rasuli mm-hmm. yun sax ne kataba deug dëggal na ni yàlla bi wax na ne bind na ne man ñu danaa gañe man ak sa ak sama yonent yi bàyyi ne bii rusulu wala axtaabu haamoo wa urshidu waqad tariko min ba sabar wa rahwa bàyyi man yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bii rusulu wala axtaabu haamoo yonent yi ci yonent sam liñ gëlëmee wala ci yonent sam lañ gëlëmee ñoom ñëpp ci lañ gëlëmee bàyyi ko wax bii rusulu wala aqtaabu haamu waaye dafa ursidoo ci ci mën a gindee koy tamit bañ bi defee lépp pare waxat tar ko nag ñu bàyyi nag min baxar sa baxar war awa géej gi taxaw masha Allah tey nga ne ma loolu nu mën a amee naka la yónni yónni gëlëme ci yónni bi an naka wala yoo gën ci yónni maa ne kaay yónni yëpp dañ tax ne yàlla ma yónni te xëy ba yónni moo leen këf mm. xamu ne ana yàlla ñu ne yàlla su fekk yónni moo la yónni xamuñ ko kon kon ko leen gëlëmal sallallahu alayhi wa sallam waaye ku leen gindi nag bañ am bañ mën a joxe seen xam-xam yi kan la yonent moo leen gindi ba tey ci moom lañ jeex ci moom nañ def lii ma tudd fanaaw baqaw démb ba léegi muy foon gaa yi xamuñ ko woon wuli yàlla yi tamit ci yonent lañ gëlmee parce que wuli bu nekkee rek nga xam ne sama sama tariqa yonent moo ko jox amul ci kenn benn tariqa bu ñu sam joxe amul benn tariqa lu ñu sam joxe mooy tariqa tijaan yi kuru cheikh tun cheikh ma jox tariqa yit te yaa ngi ne ñun tamit ma jox mënoo ma seetaan tamit àqul ahmadiya taxawaat. ñi àqati Muhammad ne ko woon a anbiya yi. nii lu àqal am na ba taxawal ajabul awliya yi tabaraka taala. benn wëli bu ma traversé Cheikh Tine jàll ci yonent bi amut. soo ko weddi ana mina laay. wala moom mi min nii ñaari dégg-dégg mën nga ci am nag. ana mina laay xam nga lu ñu firi. yonent mu yéen sam ci boppam moo ne ana mina laay mën naa ci yàlla. wal moom nunu ñi gëm yàlla ñi ñi yàlla ñi mooy wëlli wilaaya baatu ngëm islam iman mooy Cheikh Tidiane dañ ko mbooloo waxal waaye seetaan lay waxal boobu dégg-dégg la ci wala nga ne ana mina laay seetaan daan seetaan ci boobu ci la mu yonent bi naan ana mina man maa di bi wal moom ne wëlli yàlla ci ma lay gën a man Cheikh Tidiane may moo li ka sax de maarif cam bàyyi balaa nga wax loo sax balaa nga wax loo sax dama lay yokkal ci wax ji pour nga xam ne baay du kenn دفعنا معاني أبي الأباسي abil المهني afna المهني الشوقي wa afna al mahani shawqi يكون ملزما وتنبين اتى سيرت سكرنا زاهيه وقد قشت بحر الغيب في بحر سره ولم اكوان لا ولا متوانيا الى ان رايت قطب احمد احمد وقصر الوجود الكوني سيدة بانية وهي حقيقة السر الكوني ثاني مكوني وقد أفر فردا مسميا لو تنورته هنا الله تنورته في القسم مديرا لكأسات المعارف سم قاموا لقنا قالت واحد حقيقة السر الكوني ثاني مكوني كوني بي حقيقة كوني بي نتر بي نتر بي باغي نينا ما موي ما هو جمهور الشيخ تيجان الله اكبر اه لغي سانغ جاي تان يلي واخون نفي كوني بي يلا امول كو نتو كامل امال غاي دي باغي نيس نينا كوني بي جمهور الشيخ تان باتما الشيخ تيجان الله الله اكبر هما يونت بي الشيخ تيجان باغي يونت بي ما يقبل كون ما يباي كون بي والاخلاق كم باي وخلول lu doy war la. gaay nañ top sang jaay rek dima laaj may tont mo gën. macha allah bi inkar bi day métti dafa dafa métti limay wax métti mi méttiwul bàyyi wax na pare. wallaahi dañuy dugg dugg gars diggu rek. wallaahi xam nga bàyyi moo ne maani abil abbas afnal mahaani. mu ne maanaay Cheikh Tidiane maana. Cheikh Tidiane effacé mboolem maanaa yi. loolu mooy lan ana Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane mi ngi ñun juddoo aynu maadi. jugee fa ñëw faas dee ñu suul ko bàyyi mu ne afna maani. lan la boo wax léegi. macha allah. lan la bàyyi boo ana seetaan bi bàyyi booy léegi te. te ba léegi bàyyi seetaan bi wax moom ba léegi mu ngi fi moom. lim la bëgg a jàngal mooy kawni bi képp ku fi am mazhar. ki la effacé te xamoo ko mooy Cheikh Tidiane. ñëpp ay glace lañ seetaan mooy ndox mi. moo tax ku dugg ñoom seey ku ba ñu dugg ne yaa xam. kon ñu ngi sant yàlla baax. alhamdulilah. Cheikh Tidiane yi du mën ko yàlla bind. waaye bàyyi tamit du kenn du mën ko yàlla bind. man dama ne rek doyna rek xam nga dama deg Ibou Diouf Ibou Diouf Ibou Diouf mune ne xëlimbe gi nga xam ne ba moo bindee bàyyi ba nga ko bindee xëlim xëlim dañ ko damm yàlla buñ ci kenen ma ne ko bàyyi ko njëkk a boppam bàyyi moo njëkk a wax ne jarra dawna jarra jarra dawna na lan khalamul ahlalahum la moom big bu ngand bu kowe bi big bi yàlla ba dawna ci man chabrahim bi hukki mi li haaki mi ci atteb aji atte ji te man borom subhanahu wa taala bi an nii naka man Cheikh Ibrahim mohalla mm. jël naa pee mm. raw na ñëpp man Cheikh Ibrahim maa gën a kawe ñëpp léegi nag rahma kullu mm. comme nekkum naqari man maay maa la raw maa la man li bàyyi ko boppam mënu ko ma ko balaa ñoo sori foofu mm-hmm. ñu fàttali nit ñi ñi ngi dalal sang Ababacar Ndiaye fii si Fayda Tidiane mm-hmm. jaratul président ndax xam-xam gi dëgg la macha allahu taala mm-hmm. ñi ngi waxtaanee ziyaara waaye kiñ wara war a ziyaara la sëriñ bi duggé waaw mooy ngëneelu ziaré gi nag lay wax mm-hmm, mm-hmm. pour ñuy topp émission bi ñu xam sëriñ bi ki wara war a lay wax lay wax ba très bien xam nga dañ ni lan mooy ziaré mm-hmm. mu ñu balaa ziaré kan lañ war a lolé looluy gi kon ñu xam ne sëriñ bi mi ngi ci leeral kan lañ wala ziaré ziyaara dëgg la waaye lan mooy ngëneel bi nit ki war a am ci ziaré ngëneel li ci ne très bien ngeenelu ziaré gi sang bi mu duggee foofu ci xalimag yàlla ji moo di Sidi Barham. mu àggalee foofu ci ngëneelu ziyaara. jërëjëf. su boobaa. waa nga ne ma waaw yonental Muhammad mi mun diin ji nag. wala Cheikh tamit moom tariqa bi nag te ñoom ñoom sax ñëwatuñu yonent bi ñu ñu ñu ñëwatuñu bàyyi man a yow waa da nga xam nga euh, capital. capital. lan la. ziyaar la. bénéfice lan la. زيادة لا نتيجة هون بنك جرني مو زيادة الله أكبر تكابتل الإسلام مين تعلم محمد بنيفيس مو الشيخ تيجان واي كن فين كجرني هي مو الشيخ براهي الله أكبر حقا ما هو بدد كابتل الدين جي مين تعلم محمد كابتل بي بنيفيس رزق بنيفيس بي مو الشيخ تيجاني يعني نتيجة هون في كده جاني مليان يب بنك مني جاني لب مو الشيخ براهي wala yaqulu xesru na diini cam xasta muhibuna bali lubbu lubbi lubbi madal xataay mata baay bi muy jàngale boppam sax daana kullu faali bépp kuy saara mujj nañ nañ lan di doom loolu du loolu du ko ñuy firi ñu ne kan ak la mu ne min aw yamaani kuy teem ak kuy yaman te yéen sax waxoon na ne iman ma ngi may xeeñ ca côté yaman une sama kon yéen yéen moo tax moo tax tiyaam tiyaam yi nee mu ngi ca côté yaman mm-hmm. ku yaman am ah, kon am na comme doo daan na bàyyi nag kullu sirrin fil baraya kullu sirrin fil baraya maddahu siru tijaani mm-hmm. kon ñu ngi sant daal baax di wax ne ziyaara daal ki ko war def dëgg-dëgg dëgg-dëgg mm-hmm. ziyaara muy Cheikh Ibrahim Niass ndaxte moom rek moo ñëw ci aalam bi xool mbindaa foon yëpp ki ñëw iblis gaw leen iblis gaw leen mu ne umm bi nga xam ne umm bu yàlla xormal la saay-saay bu bon bi nga xam ne dañ ko rëbb ñëw te bakkan yi bëgg a tekki jini ñu tam-sam kale leen xaar ma jóg ci sa ma ji korom bàyyi bind ci xalimbaam ni ashiru li fakki li asara waaw ini nii la daxatal maa ngi dalil dalaalu asiru man bàyyi damay dox pour tinki prisonnier yi dagg tënk-tënk yi waaye man bàyyi dañ mu tënk man maa bàyyi ci ci adab bi far réer bi man dañ mu tënk waaye fu ñu ma tënk ci fii far réer xaa leer na xadara buy far réer man bàyyi faa tënku man kon ku ñu ci man rek séeréer dem séeréer dem comme nag toog na xool xool mbi na fa daal na man daal xam nga lu ma xew lu bi wala umu ta xas di umm bi daal xas di sama jubluwaay ci ñoom fiihum ci ñoom an asuxuhum moo ñu ñëw ma màng leen comme nippal di màng ay nagam fu ma jógee ñoom man ilaa dor barri rahimi ilahina jaar nag te ba mu nekk ci da ci àlluma réy bi di nga dem benn bu koy inkaar inkaar yow ñaaw benn uh, dagg tànk yi dagg tubo yi ñu ne ñu tuddee ñu ñu tuddee ñu tuddee ñun ahlul bida te ñaaw lamiñ lool salte wax lool ñaaw lamiñ lool bii waa ji di waxtaan ci ngeen lu bàyyi ceeb boobu asal amagutoon mën loolu nekkul dëgg bàyyi nil rek parce ngeen yëpp fii la amee déedéet moom dafa xamul ne yàlla mën a yub di wala tuuti ha wax yub di wala loolu ñu day feeñal gis nga lépp lu am ci aalam bi yàlla muy fii daf la koy feeñalal mm-hmm. aalam bi dara su suuf fi lépp feeñal la dañu feeñal xataa yow juddu sax tey nii yàgg nga fi de waaye tey nga door a feeñ kon may ko waaye am rek amoo ko tey démb nga ko amoon kii mooy ñàkk fayda moo tax yàlla subhanahu ba mu nekkee ci démb def na kuntu kanzan lam u'raf xam nga amagu doon fa ahbabtu an u'rafa fa xaltu xalqan yàlla sax moo ko lool ñun sax feeñ fii màkka neen kuntu nabiyan aaliman bi nubuwati bi nubuwati وأنا بين موتي فلان كي كنت نبيان عالم بين بود فلان فلان كي نون تبو ادم امغوت فين كي نون نو بول ادم خمكو شيطان فين فين لو كنت كنت وليان عالما بيبلته باتاي نياتا كنت نغوك باين تل ني سيتين قد كنت قبل تحرف تحرك من الزر ما كان بذاك تستيت من نهوي وغلقت إلى هنا كن كنت كنسن مقام الله كن نبيا مقام الله كنت وليا مقام الله كنت بكنسن مقام الله ما تعالى من هو الأول والآخر والظاهر والباطن ما شاء الله تعالى ñi ya nañ fii kon yow boo fekkee da ngaa nekk koo xam ne da ngaa tëx gumba lu noppil yow soxla dafa kasu ci yàlla xattama la ala qulubihim wala samihim wala absami qisawatun waye baye mom li ñu wax mom deug la baye mo ne qad ahbabtuhu hatta arani kuntu wa rabbi lam yola makanan wala waqta wa di baye ko bind fa jawatu taaha ahmad al badr nasri wa jawru shi'ri wa jawri ni bayta badali ma yaw habani wisaaloo wama نال سر المصطفى اكثر سمس واي واي واي واي واي واي واي waay waay sëñ bi nel mënuma ko xam nga mënu ko ak xamu ko ak amu ko ku mu ne nga ko waaye kenn mënu ko kenn amu kenn xamu ko waxoo dëgg bàyyi ma li wax ma na ko topp may yëpp ci bàyyi la génnee ma ma xam lu gën a sax bàyyi ma ne yaakaar yi yaakaaru mi daan fon yi mu ngi sama man bàyyi man bàyyi may facteeru yaakaar yi te nag nañ bàyyi sax loolu li gën a garaawate bàyyi mu ne ruuy na ma taxe ñu ngi tax sumb ñu ngi ko sumboon ma ne bàyyi dama xaar talaqaahu min nii talaqaahu min nii kullu ruhin mujarradin ñu ne ko ñooñu la mu amru xeyru mëri bàyyil boobu omee tax xalaq bi la amee ni mahabatan yenal kullu maa yow bi sammi ëri ji bàyyi sa xet gi mu ne mahabatu xuuti wa unsi wa nurti wa dréyi la si yëpp xam bi dóori furu bàyyil boobu bàyyi mu ne mbooleem kuy dagg penku sow dina yaa ngi dem makk. sama xet ngay xent ci makk. Mm-hmm. Eh? yow yii wa attunoo ko moo tax. Mm-hmm. yii wa góoru koy wax moo tax yow jigéen nga. soo déggee arja soo déggee arqaan di wax na arrijaalu qawwaamuuna alaa nisaa. Mm-hmm. rijaal bàyyi mooy rijaal. yow xam nga ne yow doo góor góor góor bàyyi mooy góor seetaan góor yontu ku ñoom jigéen nga. yoon yëpp ay jigéen lañ ci yontaal Muhammad

dem yoonam. rawatina kilifa na nga saako ko nag. xool rek sa sa kor bopp bi. Mm. ba sa tànk mën a ak yow. yaa noonu moo tax. Mm-hmm. yow yaa noonu. maa ngi sisiyee. li seen xadar. Mm-hmm. dafa am benn mos mos a ñëw ci moom. di ko boole. xam naa mooy gars yi nga xam ne yéen sañ def yëfu njëbën njëbën rek. Mm-hmm. na ko diw daf doon jëw. di wax na le li di wax na le la di wax na le li di wax na la laa wax a wax maa ngi seen déedéet ko waxuma lol de mu ah ke mako fekke fekkee maa ngi seen waxuma ko waxuma mu ne ko eh man ma fekke mu la koy wax sëñ may ne ko kooku waxul la waxul mo mu ne ko dul ma xal pour ko waxuma waaye na tek di dul mu ne ko parce que mun mil mu non motax allah akbar ko mil mu noonu waxuma wax ji mom moko mom moko man mil mu ni mi wax allah li mo tontu bu beref bu rafet moo tax bëri na koy wax ci moom lu ñaaw yow yaa mel noonu moom melul noonu bàyyi ñes ku mën a jël làmmiñ bu ñaaw ci ca moom ah, yaa ko mel rek <laughs> jamono bi RTS defee interview si marabu yi mhm. ne marabu yi dañoo bëgg lu mu jàngale wuñ. waaw ñu daara mm-hmm. liggéeyuñ defuñu dara biñ ko ñëwee di ko nettali. Mm-hmm. dani moom marabu yi la wax man du ma marabu ma du marabu man samp naa daara. waaw tabax naa juma. waaw maa ngi liggéey. Mm-hmm. la maa ngi jàngale. waaw kon kay na dem. ma marabu la man du ko toog man. te marabu sax xam nga firi. marabu xam nga lu ñuy firi. mooy benn picc picc boobu nga xam ne dafa fi. alhamdulilah loolu loolu marabu ñun sama kooku man sama daara di <laughs> moom bañ na ko dafa dañ ko dàq daara yi dañ ko dàq <laughs> dañ ko doon dàq dara ba mën samp dara moo tax ñu dàq ko ñu mu génn kër gi tudd maarabu bàyyi moom du maarabu sant yàlla baax sëriñ bi kontaan nañ trop kontaan nañ eh, mujj nekk sa waxtaan far <laughs> daa mujj sax waxtaan nekk di bànneex ñuy far di bànneexu di waxtaan ci Cheikh Ibrahim allah pour wane la ziare bi ñuy ziare eh, incha allah le 18 xam nga léeg-léeg nit ñi seen dégg mm-hmm. ñuy ziara mm-hmm. nee na sanga jare rek nee li bàyyi lii ziara comme moom kon lam ci namu mooy bopp na ci namu déggal li ma li ma li ma tarif yëpp xanaa li ahsanu alhusna wa siyaada man a ziara mooy tal Muhammad wàcc ci alam bi dëkku fi siyaada mooy Cheikh Tidiane nat joo mooy Cheikh Ibrahim te loolu alxuraan wax mooy ziara alif la mim salikal kitab bàyyi na nahnu awla darsul kitab wasal kitab nahnu ël xaji wala arkaan lii leer na maa ngi ne nuyu di leen nuyu di nuyu àddina bi yëpp di nuyu mboolem mboolem mboolem képp ko taxaw ne ashhadu an laa ilaaha wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah lay nuyu di ndokel kep képp yangam tere ngam Cheikh Tidiane di laasu suba ngone wosse malay ndokel bu la bi bidaawloo li nga nek de jàppal de jàppal fuk la ko juróom benn billaahi la ilaha illa huwa soo ko bay torox allah akbar jàppal tere tarixa Tidiane bàyyi nes nee nasihatu minni ila al ikhwan fal tamsikoo tariqati Tijaani tariqa Mahdi Fadil warid waat aussi ça bi suntu wal furqaan jàppal jàppal bu bax faydu bi jàppal jàppal faydu bi parce que bàyyi nee na hé man dama ñëw faydu bi xamal la moo tax faydu bi ñëw ci àddina bi doxful iman fi qulubi naas dama fekk iman raf ci rafle nag xam-xam la rafle ci xulub bi daa foni ñëpp ñu ngi fii xamuñ kuy baru iman te iman du biir mukk te jeexoo ci yàlla man taban baay maay jël ni di yóbbu ci yàlla lii lii ma tax bàyyi na kon fekk naa xol yëpp kay nekk daful iman parce que kenn du am iman mu wér te demoo ci yàlla te bàyyi mu yóbbu nañ ci yàlla kon foo bëgg am yoon fooy ñëw ñëwal ci baay waay macha allah ñëwal ci baay boo ñëwee ci baay da am yàlla am yonent bi am Cheikh am baay mm-hmm. gis nga ba dem ba ci yàlla yàlla kese nga am mm-hmm. kese mm-hmm. ba dem ci yonent bi yonent rek ngay am man Cheikh Tijaan Cheikh rek ngay am waaye boo ñëwee ci baay moom mm. moom baay moom fa la force ba fu ñëwee mm. da nga am yàlla da nga am yonent bi da am Cheikh Tidiane danga am Baye Niass danga am kii ku soo ba saa taxaw lu war ñëw ci kan gën a Baye ci lay ñëwaatee waaye ci Baye nga amaatee lii xam nga ma jox la benn parabole ñu toll Yuusufa ba mu tàbbaroo fa dañ ko kaso kaso googu nag su ma la waxee ne kaso ga am na kum ndox doo ko gëm kaso ko nit la mu nekk fa ñaari ñaari waayam ñaari waay xiit xam naa leen mm-hmm. ay nit lañ allahu akbar ak yusufa mi nga xam ne moom muy firi gént ya mm-hmm. kon yusufa nga ne kaso gaa ngi nii mm-hmm. ñaari gaa yaa ngi nii <laughs> <laughs> boobu si jour si bi lañ koy leeral xam naa de <laughs> xam naa de xam naa de wasalaamaaleykum wa rahmatulah ba jërëjëf sëriñ allahu taala mbokk yi ñu ngi am contentement di dalal sang Ababacar Ndiaye si oyof tànge gi si xam-xam gi ak ci mën a développé bi ci xam-xam sëriñ bi yàlla yàlla may ko gudd fan yàlla yàlla guddal fanam ñu ko imam Cheikh di ñaane yàlla na ko yàlla may mu dund ay at yu bare bari bari ndax dundam njëriñ la ndax tasaare gi mi tasaare xam-xam di fàttali mbokk yëpp le 18 incha allahu taala di ziara bi ñu ngi si invité mbokki jullit ñëpp di si invité képp kuy bëggee Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ñoom ñëpp ñu ngi leen si invité encore une fois di nuyu naalal mu naa borom mbaxana yu rafet yi. di nuyu Cheikh Moussa di nuyu Cheikh Lamine di nuyu waa jamaa bi ñëpp di am contentement bu baax di ñaanal sëriñ bi ak ittee gi nga xamante ni saa bu ñu fi ñëwee mi ñu koy may sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax si ziyaara bi yàlla si yàlla yóbbu jàmm li nga ci ay mudet ak i awraat ak i futuxaat bi si ziyaara ba yàlla na fa yàlla dotti loolu ba képp ko fa teew jëriñoo ko kon mbokki fayda Tijaaniya ki ñu doon àndal mooy sang Ababacar Ndiaye fii si fayda tijaaniya ñi ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon insha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujël faydu tijaan jox ñu ñuy naan